gannaaw bu président Macky Sall arrêté li nga xamante ni état d'urgence bi ba lépp bini xamante bi nii Mumbaay la ñu dakkaloon ko tey jii loolu lépp waral kidi di Mamadou Thiaw di maire bu Tassette amalon benn ndaje bu mak fële ca Tassette ngir wane fidélité am ci président Macky Sall. mbas bi daf ñu tëjoon pendant presque an suñu ni am nañ fi dara. mais tay biñu levé état d'urgence gis ngeen ko ci région yépp jóg nañu de ñun kenn duñu tënkati fi ci département Thiès. dañu jël suñu responsabilité pour accompagner la fi lañ koy commencé ci commune Tasset duggu ci département bi. ci lolu mom Mamadou Thiaw mi ngi wo bép leader politique bu bok ci mouvance présidentielle bi ñu andando bolo ngir parti bi mëna jëm ci kanam. monsieur le ministre fu ngeen ñu wo rek yeen ministre yépp nak yi nekk ci département dajale leen parti bi ñu àndandoo parce que ñun ñëpp benn intérêt lañ am benn objectif mooy jàppale la président Macky Sall. moom du Thiaw wax na bilan bi nga xamante ni moom la fi président Macky Sall def ci juróom-ñeent at. ba tax na kenn waru koo jéem a diir mbagg ndax moom moo fi nekk te moo fi mës a nekk. président Macky Sall en matière d'infrastructure gis nga tey bu ñu jëloon Ila Touba KMS 3 délestage yi daan am ci réew mi mais doy na bilan. désenclavement énergie bi lépp 450 milliards Yo xamante ni ndaw ñi ak jigen ñi la ko jagleel lolu gis nga buñ ko bolé ak ci infrastructure yi fi def bilan la ba 2035 wóor na yalla président Macky Sall yaay leader yaay gor yaa jappalé wa Sénégal looloo tax ñu takku bàyyi nelawatuñu guddi nelawatuñu bëcëk meeting boobu leader politique yu mag wala responsable politique yu mag teewoon na fa mbooloo mu takkoo takku teewoon na fa te Mamadou Thiaw jubluwu ci leen lu dul ànd ak président de la république fii ba horizon 2035